safar مسلم aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi rawatina bokk yi nga xamante ni ñoo bëgg lu baax ak fuñ mën a ne waaye nag xaasatan di njabootu cheikh mahamadul basir mu cheikh abdul xaadir moo xam muy taalibe bu jébbalu ci moom wala muy ab soppe wala muy nit ku bëgg lu baax te xam ne mu ngi liggéeyal yàlla ginnaaw boo xam ne fédération bi nga xam ne moo di taawun ala xidmati cheikhul xadim am nañ yéene ci pàkk bi nga xam ne sëriñ Basiru joxoon na leen ko ñu fas ko yéene def muy kërug sëriñ Touba di kërug gan goo xam ne gan yi sëriñ Touba yi ñëw ci màggal yi bu ñu ñëwee di fi dal ànd ak ñoom ñu laaj sëriñ bi ndigal ba mu jox leen ko ñu fas ko yéene tabax ci seen ñaq bopp liggéey boobu la sëriñ Basiru ñëwoon di teg si xeer wi bu noppee nag fas ci yéene yëkkati kaddu ngir soññ leen ci taxawaay boobu nga xam ne kenn mënut a jëriñ taalibe Serigne Touba bi lu dul ne da nga koo liggéeyloo te ko képp koo xam ne yaa ngi liggéeyal Serigne Touba sa njëriñul àdduna leer na solo ñol àllaaxira taxaw na. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu leen di bu baax a baax di leen sant yéen bi yëpp ci yéen a jure ak xalaat bi nga xam ne def ngeen ko ngir liggéeyal ko Serigne Touba. ginnaaw bu ngeen ci sàkkoo ci man ndigal muy loo xam ne ni ma ko waxoon keroog ci gàmm ko rek ngatanum sëriñ bi la ndax yàlla def na amoon naa yéene ci weeru gàmm bi ma xalaat ko tàmbali ko defar ko ngir eh, jàppale leen ko ci gan ñi ndax gis nañ màggal gi ak xew-xew yi kër gi dem xate waaye yàlla def boobu ba tey eh, amu leen woonu jot amu woonu jot ma di ko xalaat far màggal gi jàllee nag yàlla def yéen ngeen am yéene defar ko bi ngeen ma ko waxee nag ma rafetlu ko bu baax ndax eh, xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa eh, képp ku ko yàlla defal feex ba nga ne ci rek ndimbal la ci yow kon nag bu yàlla defee ngeen am yëg yëgu xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa la kon dañ leen ci sant bu baax di ñaan rek ci barke Sëriñ Tuubaa ni ñu ko tàmbalee rek mu dem ba àgg ak jàmm te li ngeen ci sàkku di ngërëmu sëriñ bi Sëriñ Tuubaa defal leen ko ci ndax ni ma koy waxee rek ñun amuñu pay amuñ dara lu leen mën a fay Sëriñ Tuubaa rek leen mën a fay xam na ni li ngeen ñu jëfal suñu jëm tax taxul jëm Sëriñ Tuubaa tax jëm Sëriñ Tuubaa mi tax nag ñeewul ba dafa am pay kon ñu di ñaan lépp lu ci waay yéene bëgg ko cee jëf suñu borom kattanal ko moom xéewal mën ko jëf te lum mu ci jëf itam yàlla ko Sëriñ Tuubaa nangu te dencee ko fu yàq ak gut salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh la noonu ko sëriñ Abdou Lahad waxe woon ne lépp lu ma leen di woo da may fekk ci kanam yéen jooju mu amoon ngir defar ko defaral ko dongo yi loolu lay wax ne du wax lim ciy def waaye ku ñëw dang ko ci fekk ku dem da ko ci bàyyi kon nag alhamdulilahi rabil alamin ñu bàyyi nag sëriñ Abdou Khadir Samb moom itam mu yëkkati ci ay kàddu auzu billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah bokki jullit bokki taalibe yi ngi leen di nuyu sëriñ bi noo ngi lay nuyu ci turu taalibe yi di la siyaare di la jéggulu it ci taxawaay bi ak naaj wi ndax lii lépp sëg yëg ci noonu la ak sunu ja sag jàpp ak sag taxaw ñaan yàlla sama boroom mu guddal saw fan te wéral say cër te musal la ci am ndog ba nga yeggale say naal yaakaar ji nga xamante ne eh, yoonu murit am na ko ci yow sëriñ bi am ko ci yow say kilifa am ko ci yow taalibe yëpp am ko ci yow yal na la yàlla dimbali ci kattanam ba nga yeggale yéene yooyu te ànd ko ak noonu ak taalibe yëpp ak jullit yëpp barkeb sëriñ Tuubaa dara ji sëriñ Abdu Xaadir loolu maa ngi jéggulu nag ndax eh, yeex gi agsi te loolu warut woon ndax maa fi waroon a jiitu waaye itey jamono ji ak fa may jóge di xaw a sori ak tànk-tànk yi rek moo ko waral waaye sëriñ bi di la seereel ci mbirum taalibe yi ndax wax ji du gudd ndax damay wax rek ci turu taalibe yi yéen taalibe yi maa ngi soññ sama bopp di leen soññ ci liggéey bi nga xam ne moom lañuy ñuy liggéeyal sëriñ bi ndax bon royee ci moom day war na noo góorgóorlu war na noo doon ay jàmbaar ndax moom mii day maa ngi fàttaliku ci jamono sëriñ Saliou ba fii ma fii nu toog képp ku fi kilifaam liggéey boo ko mas a jox bu ne kenn wérante na liggéey bi moom defar na ko ba mu yegg ba defe ko noo xamee ne faaxoon a njortam kon nun ñii di ay taalibeem bu yëkkatee ab liggéey jox na ko te liggéeyal Sëriñ Tuubaa rekk tax kenn wërata am xel yaar ci ne liggéey bi dana yegg ndax moom mos song lu yeggut ndax lu mu song songe na ko Pastef songe na ko jom songe na ko jëmmi Sëriñ Tuubaa te lu mu song ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa rek loola yegg na te lépp lu ko song lu ne Sëriñ Tuubaa dox na digganteem ak moom kon yàlla na yàlla gënte bi Sëriñ Tuubaa di dox sa diggante lépp luy am ndog te lépp li nga yéene te di ko dox sëriñ bi yàlla na yàlla xalal la aw saw yoon ba nga yegg te te yegg yeggin woo xamante ne yàgg bi yëpp la koy am di rafetlu nag taxawaay bi sëñ Ahma mii ndax sëriñ bi sëñ Ahma day teg gi nga ko teg ci kanam daayira yi mate na ko ndax xeebut kenn tëju téléphone am bii ba ku ko bëgg a jot doo ko jot saa boo bëgg a jot sëñ Ahma boo ko woo da nga ko jot ndax liggéey bii de ba ma woo di ci waxtaan ak man dama ko ne woon wax ji rek doy na suñu diggante mu ne ma déedéet duma ko def daa taal otom ba ñëw sama kër toog takkusaan yàgg fa lool nuy waxtaan mu woon ma lépp nu bokk di ci waxtaan ba loola jeex bi mu demee ba bis ba fomm it dafa ma woowaat ne ma fomm na ba démbit mu woowaat ma ne ma maa ngi lay fàttaliwaat bis bi kon taxaw gi rafet na ñoo ngi ñaan yàlla sama borom moom it yàlla dimbale ko ba li nga ya am ci moom ci yaakaar ba doxale ko seet digganteeg nit ñi yaakaar jooju yàlla bu mu tas sëñ Axma gën a la góorgóorlu gën a la góorgóorlu ubbil sa bopp doole ubbi sa bopp doole ubbi say téléphone doolee maye sa jot ndax sëriñ bi kat képp koo xamante ne doxale na sa digganteeg nit ñi xamal ne am nga aw sas ndax lu jag ñu jàpp ne yow lu jagadi ñu jàpp ne yow te am na ñoo xamante ne bu dul woon ak sëriñ bi doo leen xam sax bay xam seeni téléphone kon nag nit ki bu fekkee moo tax nga xam ko bay xam numéro téléphone di xam soxlaam jëmm ja tax nga di ko xam bul fàtte jooje jëmm ja tax nga di ko xam na nga leen bàyyi xel ndax taalibe yi amul lu may sëriñ bi ku dox seen diggante sëriñ bi na nga yaatal sa bopp yaatal sa dënn ndax sëriñ bi ñëpp a xaj xëtut ñëpp a ci moo ko asamaan yem jëru nan yaatal ma ma xool ko te sëriñ ba sañ bas moom yenn jukkee ja nga ko xamee woon ba mu nekkee nii ba fi mu toll rek mooy mooy mooy mooy jukkaam lenn lu mu mën a doon lu ne xanaa xat gi la ñuy wax te loolu la loolu lañ doon ñaan kon nan ñi nga xamante ak njobootam lan nan fas yéene góorgóorlu te lii mën a sant nu fas yéene def suñ fukki loxo ba taxawaat fii yëkkatiwaat ceebi ji jox ko ko mu ñaanal nu wasalaamaaleykum wa rahmatullah asubillahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim kon mbokki jullit yi ginnaaw ba ñu sant yàlla suñu borom julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa ñuy jaajëfal Seexuna Ahmadul Xadim mi nga xam ne mooy suñu wasila di yëkkati kàddu gi gàtt yoo xam ne dafa jëm ci daayira bi nga xam ne moo lëkkale ataxaawunu ala xidmati Seexul Xadim di njabootuk Seex Mahamadul Basiir ñi ay taalibe ñi ay soppi ñi ay wëlal ñëpp moo leen lëkkale waaye nekk ci ay gox goxaan yu fàccanti ko tàmbale ci Ndakaaru ak barab yu bari ci région yi ginnaaw ba ñu jiite doon nuyoo ak siyaara dañuy nuyu suñu kilifa goo xam ne mi ngi ci jataay bi di sëriñ Jili Sàmb doon suñu magum taalibe fii ci biir kër gi waaye sëriñ bi daf ko muy suñu njiit di suñu jawriñ ci liggéey bi ginnaaw loolu nag ñu ngi jégalu bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom la ñu yëkkati ndax dafa am liggéey boo xam ne dañ ko fee dooroon ba jotoon ca wax muy ci benn kër goo xam ne taalibe yi nga xam ne ñooy taalibe Cheikh Mouhamadul Bachir tënku ci taxaawu na xalaa ñoo amoon nësër boo xam ne dañ koo nësëroon ngir liggéeyal ko seen sëriñ liggéey boobee nag mooy kër goo xam ne dañ koo fas yéene tàmbali tey jii ba sëriñ bi tegal ñu xeer wi muy ak kër goo xam ne dañ koo fas yéene jubluwaay ba nag mooy yokk ci ay dal ci kër Cheikh Mouhamadul Basir dara waralu ko nag lu këru màggal ngir gani sëriñ Touba yi nga xam ne ñooy ñëw fii taalibe yi ak njaboot gi gis ne dalwaay yu ci bari xat na ñu am yéene waxtaane ko ba déggoo ko ñoom ñëpp ñu nesal ko waxtaane ko ak sëñ bi sëñ bi ànd ci ak ñun jox ñu ci ndigal ba ca gàmmu lañ ko njëkk a wax ba am ci ñoo xam ne jot nañu yëkkati seen addiya dugal ko ci am ci ñoo xam ne jotoon nañ cee wax ay wax ngir fas yéene ko caa def bañ jàppoon bis nag ngir war a nooti xeer wi ngir yokku yokku yëgle bi ngir képp ku ci war a jote moo koy xam moo xam kuy taalibe wala ngay soppe wala ngay xarit wala ngay wëllëre moo xam nga ci bii kër suñ mas waaye nag moo xam itam nga aju foo aju ci buntu kër borom Touba yi te lu baax rek ñor la liggéey boobee nag tey jii la yàlla suñ borom dogal ñu tax xeer wi sëriñ bi moo ñu ko tegal ñuy sant yàlla bu baax a baax nag di sant sëriñ Touba waaye di sant suñ kilifa gi ñu yàlla booleel di Cheikh Mouhamadul Bachir ci woyof gi nga xam ne may na ko ak njabootam waaye yaatu dënn gi nga xam ne may na ko ak njabootam waaye xeemem gi nga xam ne xeemem na ko ak njabootam ngir fas yéenee ànd ak ngir liggéeyal borom Touba. ba fépp foo xam ne xaacu nañ ci ngir jëm ci liggéey Sëriñ Tuubaa mu gàttul ñu boppam ba noppi gungeem ñu dooleel ñu ba noppi ñaanal ñu loolu la ñuy defal loolu la ñu defal tey kon nag ñu ngi koy sant bu baax ci kàddu mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo fi teew rawatina jëwriñ yi waaye ci loolu nag ci la ñu tàmbalee ci Serigne Malick Diop mi nga xam ne moo nekk ci bopp jëwriñ bi nga xam ne mooy fédération taxawunu ala xidmati Cheikhul Xadim ñu ngi koy nuyu di nuyu mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne ay jëwriñ la te topp ci gannaawam di leen soññ ci liggéey bii nga xam ne ñoom ñëw nañ teewe si ko keroog ba ñuy waxtaan tamit fekke woon nañ waxtaan lépp ñoo ko na son ñu leen ci soññ bu baax a baax te ñu xam ne liggéey bi weesu nañ ay wax kon ay jëf rek ci lañ daal di jëm ndax dañ koo wax ba agsi fii ba nas ko ba def ko benn kii ba rëdd plan lépp ba agsi tey jii jënd ci lenn ci ay matériel ba tey jii def nañ ko mel na suuf ak xeer ak fer ciment itam am na fi waaye kon nag la ca des mooy waaxu jëm ca waar wa te fas yéenee bay waar ba mu set wicc te fas yéene liggéey bii ñu tàmbali ko te laal suuf la ma waxoon te keroon ne la Cheikh Mouhamadul Mountakha waxoon te université ba rek. taaliba murit nag bu xasee ab xasam ci liggéeyal borom Touba da cee takk ndiggam mboole ko xalaatam ak i ak poosam daram bañ koo fekkee bu dul dara sax as gor bu xasee ba wax bana danaa def nangam na xas la mu xas mu fas yéene loola sotti bu ànd ak dogalub yàlla kon nag ñi ngi leen di soññaat bu baax a baax liggéey bi ñu def ko yitte. kon fi ne wax doonatu loo xam ne moo koy defar jëf a koy defar kon nag képp koo xam ne am nga yéene def lu baax wala nga am yéene liggéeyal Serigne Bassirou Cheikh Cheikh Abdoul xaadar ñu ngi lay tàllal loxo ci liggéey bi li ñu am nag yéene fas yéene ko di ko ñaan borom Touba di ko ñaan kàttanu yàlla fas nañ yéene bu ñu yàlla dimbalee ñu am ko nañ ko bëggee bala ñu àgg ci màggalu Touba ñu jég ñu taxaw fii jébbale caabi yi kon nag loolu ñi ngi sant mboolam ñu teew ci jataay bi ak ñi nga xam ne fas yàlla dogal na mënuñu woon a teew am ci lenn jëwriñoo xam ne xëy na seenu tànk sori na ñu nekk ba bitim réew te fekk fekk jataay bi fekku leen fi ñu ngi leen di nuyu ku ci mel ne Serigne Ismaïla Diallo ak Serigne Jiidu Mbóoj ma nekk ci Turquie ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen barab yi faccanti koy ku mel Ibrahima Doo ma ca Paris ñun ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen fàttaliwaat liggéey bi ñu waxoon ne door nañ ko ñu ngi leen ci soññ di soññ seen njaboot gaa nga xam ne ñoom lañ fa nekkal ñu xam ne liggéey bi tam na lu ci waaye nar a def ñu jaarale ko ca fañ ko waxoon xam naa loolu lépp daañu ko leeral ci numéro bi nga xam ne mooy Serigne Bakke Jonn wala nga woote ci ka nga xam ne moom nga gën a jege ci jëwriñ ñu waxtaan ci ak moom moom dala la teg ci aw yoon la dante la moom agsi fi liggéey bi ñam waaw kon ñu sant yàlla bu baax a baax ci santaat suñu borom santaat Serigne Touba ci kàddu yi fi jàll yëpp ci mboolem jëwriñ yi nga xam ne yëkkat dañ fi kàddu ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci seen taxawaay ak seen yéene ak seen pas-pas ci bañ ko wootee ba léegi kenn ku nekk nii taxawaay bii nga ci am saa su ne danga koy a yeesal kon nag ñu ngi leen di ñaaral ci kàttanu yàlla ak mbaaxu Serigne Touba kenn ku nekk la nga ca desar yaag sa njaboot yàlla na leen suñ Touba gàttanul boppam ba kenn ku nekk lu kawe la ca bëgg a def nga def te lu kawe sa jort barkeb Seexul Xadim waaye am na kàddu cant yoo xam ne mënut a ñàkk jëm ci mag ñi nga xam ne dañuy ay magi taalibe te nekk ci biir kër gi te lu nekk ñu nekk ndokk ak ñun ko ci mel ne Baye Serigne Jaay tamaate mi ak euh, ku mel ne Serigne Massamba Thiam ak Alaaji Seex Thiam ca Ndakaaru ak euh, sëñ Maguette Diouf ak ñi mel na ñoom a lim waaye ñoom ñëpp ak sëñ Daam Diop mii nga xam ne moo nekk Touba Baxdaat ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax ndax lépp loo xam ne woote nañ ko muy liggéey bi danañ ñëw taxaw ci wane ne kër gi ñoom ñoo jaboote ñi fi nekk ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci turu fédération bi yëpp waaye nag mu mel ne ginnaaw bi ñu defee woote bi am na ci ñoo xam mu ne su na ñàkk a jukki ndax addunaa tëdd na waaye suñu borom moo ko tëral noonu ndax boo demee ci alquran da nga wax da nga gis suñu borom wax na ci ayib alquran ne la annaasu muxtalifun maa bind nit ñi waaye maa leen wutale delluwaat tamit firndeel wax jooju ci war a fax naa baxdum fawqa baxdin darajaat mu mel ne suñ borom moo bind nit ñi ni mu leen wutalee noonu la ñàkk a la daraja yi moo tax ñii dañ leen di beral seen woote ngir cir yooyu leen yàlla jox te muy dogal suñu boroom ci ñoom muy ñi nga xam ne ay taalibe lañ aju ci sëñ bas ñenn ñi de ay soppe ba mën si doon a xàmmee ak i taalibe lépp loo xam ne sëñ bas nekk na ci wala njabootu sëñ bas nekk na ci ñu nekkandoo ak ñoom mënuñ ca ñàkk nag jukki ay tur yoo xam dañ leen di tudd waaye bu boobaa itam nañ xam ne ab tàmbali rek ci ñoom waaye képp koo xam ne dégg nga woote bi te suñ borom boole la ci ñooñee nga xam ne ñoo tax ñu wax wax ji nga xam ne wax ji agsi na ba ci yow ba ci yow ñu mel ne ku ci mel ne Babacar Ngom bu Sedima ku ko xam-xam ko ak sëriñ bi muy lu yàgg a yàgg waaye Seex Taal di ab taalibam ak ku ñuy wax Modou Asta Jaxate ca Mbuur ak Moor Seck ma nga xam ne moom itam ab taalibam bu yàgg na nekk ca Ndakaaru ak Mouhamed Dia di doomi Abdoulahi ja ak ku ci mel ne Saari bu di rek sëriñ jaxasoo ak sëriñ bi lool ak ku ñuy wax Ibrahima Ndiaye ca Assirut ñooñu ñëpp li tax ñu di leen tudd dañ leen a ràññee xàmmee seen diggante ak sëriñ bi waaye nag du tudd koo xam ne taalibe la doom la ci kër gi te nekk fii ci Mbàkke Bawol di Mansour Mbaye ak seen njaboot googu ñëpp muy Alaaji mbàngak ñoom ñëpp ak Abdou Khadir Ndiaye moom Baye ma Yacine Ndiaye ñoom ñëpp daal nañ xam ne kenn ku ci nekk sëriñ bi waxtaan nañ ci ak ñoom ci liggéey bii ba mu jox ñu ci ndigal ñu xam ne bu soobee yàlla incha allahu rabbi buñ danañ sol suñu dal kenn ku ci nekk fa nga nekk cër ba la jox ñu fekk si la foofa waxtaan ci ak yow leeral la ko xam ne ngeen xam ne liggéey bii seenub liggéey la liggéey Serigne Touba la itam te xam nañ leen jëfal rek moo leen ñor moo tax ñu ngi leen ci tàllal loxo bu baax a baax a baax incha allahu ak ku ci mel ne Malick Guèye ak ak euh, Malick Guèye nekk ci Italie waaw waaw Malick Guèye di jàmbaar lool moom itam am taxawaay lool nekk ci Italie ak mboolem ku nekk ci diaspora bi ak fu waay mën a nekk di ab taalibab Serigne Touba boo xam ne liggéeyal Serigne Touba ñor na la ñu ngi lay tàll loxo ci liggéey bi wasalaamu alekum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf mbokk yi kon ñoo toppandoo kàddu yi nga xam ne jëwriñ yi nañ ko te mu jëm ci wàllu liggéey bi nga xam ne taalibe yi ñoo ko fas yéene liggéeyal seen sëriñ di Cheikh Mahamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir mu mel ne nag sëñ Abdoul Ahad noonu na woon ku liggéeyal sëriñ Touba ku ne dongo yee la war a fay te kenn naa tablewut ne Cheikh Mamadou Bachir waxoon naa ko dootoo dem fenn foo demal sa bopp dootoo jëf loo jëfal sa bopp ndax li nga yorol yoon wi foo dem sëñ Tuubaa la fa yónni looy def sëñ Tuubaa la koy kon nag loolu du mën a ñàkk ñu la wuutu ci sa bopp wuutu leen ci seen bopp ñoom it mooy taxaw temm ci say yitte te loolu ñenn jiituwu ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla jaarale nga doon seen bunt ci Serigne Touba loolu moo tax ñu ngi sant fédération bi nga xam ne moo di atahaawuna ala xidmati Cheikh al Xadim te sëriñ Ahmadou Ndiaye ne ci bopp bi feggoo ak sëriñ Jili Abdou Khadir Samb ak sëriñ Ousseynou Bousso ak sëriñ euh, njaay Tamati mi nga xam ne ñooy seen i jëwriñ ci biir kër gi ak sëñ Dame Diop. Euh, loolu nag soññe bi ni ñu ko waxee rek ginnaaw bu ñu soññee seen bopp ba noppi ne dañuy soññ nag ñi nga xam ne liggéey bi ñoo ko moom tey jëwriñi kër gi di jëwriñi jigéen ñi. tàmbalee ko ci soxna maam Fati moom soxna Awa Gadiaga ak sëriñ Moudou Moustapha Falilou waaye teg ci soxna Wali Kebe moom soxna Waalo moom sëriñ Salihu waaye teg ci itam soxna maam Faati Mbàkke moom bay Serigne loo ak mbooleem ñi nga xam ne ay jëwriñ la ñu mel na ñoom ñoo xam ne liggéey bi seenub liggéey bu leen ci kenn jiitu ñu ngi ñaan ñu soññew te soññi seen bopp di ci soññ xarit yi nag ak bokk yi bu ñuy tudd xarit ak bokk nag kenn du ci jiitu soxna Bali Muntaxa ku ne xam na ni mu demee Cheikh Ahmadou Basir waaye ni ko yàlla def ci biir ab xolam seen lépp di seen lépp kon ñu ngi koy tàllal loxo ci liggéey bi di ci tàllal nag képp ku mel ne moom koo xam ne rek xam nga ne sëriñ Basiru fab na ay yitteem jox ko sëñ Touba nga war ko wuutu ci ay yitteem ñi ngi lay tàllal loxo ñoom ñi nga xam ne ñooy fédération taawuna ala xidmati Cheikhul Khadim lii nag ñu ko yëkkati ci seen kàddug bopp waaye wuñ ko ci kàddug Cheikh Mamadou Basir ndax sëriñ Basiru da leen waxoon ne man damaa bàyyee sama bopp sëriñ bi bàyyi leen rek lu ma man ma def waaye ñu xam ne nag ñoom waq di xawaa ijël lazina daamoo fii ku bëgg njëriñ ci sëñ Tuubaa faaw nga liggéeyal ko te ñoom dañoo bëgg a jëriñ ci seenub sëriñ kon ñu ngi ci tàllal loxo ñëpp nag di lépp loo xam ne waaye yónnee na ko ci liggéey bi daañ la ko ci defal mu doon gan goo xam ne gan yi Serigne Touba yi ñëw ci màggalug Serigne Touba màggalug Serigne Abdoul Khadir waaye lu mu mën a doon xam ne rek gan ko moom ñu fas ko fii ci Gédé mu jàkkaarloo gi ñu ngi nag ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin foofu caabi ji jox ko Cheikh Mamadou Basir naalaat yeneen ñu ngi ci séntu ñëpp di ñaan ku ci def saw ñaq yàlla na yàlla la ko mu nekk sa njëriñul àdduna ak loolu alaxira wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.